Euh, comme Thierno Moule Seydou était en con en connivence avec le gouvernement. Mmh. avec tous le gouvernements passés. gars yi force gars ñëw ñu ne Thierno na tëj jàkk bi comme jàkk bi taal nañ ko. du fi mm-hmm. ubbi jëkk ku nekk na dem jullee néegam. ci la Thierno dellu néegam di fa jullee léegi comme bu fa commencé julli am ñu ñëw di ko topp di jullandoo ak moom. noonu la mosquée jàkk bi bu ñu woowee Jaamiul Hamdi mooy jàkk bi Madina Hudaa bi nii la nekkee jàkk nii la nekkee jàkk maanaam Thierno ci biir këram la sant jàkk bi. c'était une case en paille. foo la mm-hmm. doon jullee ngay di ko topp affaire bi di yaatu di yaatu. ba ñu tabax ba léegi c'est devenu une une mosquée. ok avec un grand minaret de plus de soixante-dix mètres. Mm-hmm. waaw. ñuy gërëm ñu nekk ci live bi yëpp di leen wax ñu aimer partager bu ko defee ñeneen mun a jot ci waxtaan bi ñu ngi leen di remercier di gis yéen ñëpp seen ay commentaires alors après séparation boobu kon da ngeen continuer dund ci conflit dund ci conflit ba ñu yegg si waat ci 17.

ok des fois day am ay riposte kon mos na am bés yéen tam ngeen fayu xëy na ba am ñu ñàkk non du bés euh, la situation du 17 juin dañu ñëw di sandi ay xeer ñu tam ñu sandi ay xeer xam nga c'est spontané léegi situation boobu lu nekk mën na xew d'accord ci seen côté ñoom d'accord am na ñu nga xam dañ doon fekk ci tool yi ok ñu rey si suñuy tool dina ni léegi lan moo indi turu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay wala Pastef ci coow li parce que dégg nañu ne yéen ñoom ngeen àndal moo tax ñoom bi ñu yegsee ci nguur gi ngeen ne ah kon ñun tam léegi ñoo moom nguur gi ñun ñoo gañee dañ ciy profité ñun tam reñe mhm. dégg nañ version boobu. lan moo ci indi turu ñi nekk ci bopp réew mi tey. Euh, déjà ça fait juste deux semaines xaw ma au maximum. bu ñu commencé di fêter les cent jours de. Sonko et Diomaye au pouvoir juste cent jours trois mois. pour en deux mille Abdoulaye Wade bu muy ñëw ci nguur gi xam nga nee naa la en soixante dix huit Flore Doungué dañoo indiwoon liste PDS. ñoom ñoo sant ci PDS ci département Vélingara ci Medina Gounass. en deux mille y avait la communauté Flore Doungué qui membre de PDS. jàppale Abdoulaye Wade ba entre les deux mm. ñu gagné Thierno Tidiane ak ay mbokkam ñëw rallier ci ci guur gi parce que ñoom déjà am na ko mos a wax fii si rajo an ci émission yi. Mhm. porte seen communication xam nga lan nee na ñoom faruñu fenn ñoom nguur lañu àndal ku falu ñu ànd ak yow maanaam avant ngay falu comme dugg ko ci nguur gi duñu mos a ànd ak yow. Mm. mais ñun en 2000 déjà on était avec a Wade te a Wade bu mu bu mu falu lu tax defuñu li si c'était ça ñoo fal Abdoulaye Wade. par on l'a voté on a voté 100 pour cent Abdoulaye Wade les 100 ans les 12 ans de Abdoulaye Wade mhm. mosuñu provoqué def lii. en 2012 ñun ñoo yóbbu APR ci commune Madina Gounass xam nga ñeneen Macky Sall seen mbokk la mosuñu ko voté ba 2012. ñoom mosuñu ko voté. ah oui ah Macky Sall le le savent tous les renseignements sont là mosuñu voté ñoo la ñoom ñoo ko wax ñoom nguur la ànd. en 2012 Macky Sall n'était pas dans le dans, dans le pouvoir opposition. waaw ah. ok en 2012 ñun ñoo votel Macky Sall. Mm-hmm. ba entre les deux tours nag. Mm-hmm. la ñu commencé te tey seen discours boobu ne ko bandum. Mm-hmm. parce que xam nañ lii les quatre. ils savent que le pouvoir est en train de ñu dem ne ko bandum ils ont voté Macky Sall. en bon disciple dañu voté rek mu dem ci ñoom ñu leen man moo fi ñëwee ñëw ma fi en tant que président de la mais en tant que disciple en tant que doom ci kër mais ñun ñoo ko votel les les les représentants de kii Ousmane Seydi moo indi a moo yóbbu APR Madina Gounass waaw en 2012 ñu Macky falu ñoom ñu fekk si Macky Sall delluwaat opposition parce que mm-hmm. depuis 2000 Abdoulaye Wade bi mu ñëwee comme satisfaire ñu parce que on a toujours voulu la reconnaissance reconnaissance mooy lan mm-hmm. Madina Gounass d'abord ci boppam xam ne Madina Houda existe et ça c'est indéniable mm-hmm. ñu reconnaître ñu état xam ne Madina Huda existe et nous faisons des ziar 2005 def suñu 38e ziar 38 éditions te ba léegi nguur mosul dem ziar mosul ko reconnaître te pourtant y a toute la sous-région qui se rend Madina Huda au mois de février chaque année on organise des ziar 38 éditions la def mais nguur mosu fa dem. c'est juste pour dire que les frustrations la bu ñu doon am ci Thierno Seydou Ba nguur gi ñëw yokk ko tous les pouvoirs Daaka Medina Gounass moo mag euh, seen ziyaar. waaw Daaka Daaka ñun ñoo Daaka. Hmm. tuuru Daaka ci boppam du tukulóor. ok laajal tukulóor bi ngay bu nga bëgg fii nga laaj lu luy Daaka xamuñu Daaka Daaka du seen ñun ñoo ne Daaka ñun ñoo sant Daaka. Hmm. parce que c'était la même structure la même communauté à l'époque. Daaka mu ngi commencé en 42. maanaam 6 ans après la création de Medina Gounass la ñu commencé def Daaka. en fait Daaka Medina Gounass c'est juste une imitation a initié à Medina Bérékolon la ñu commencé njëkk sant jaaka en premier en 1935 moom mooy premier daaka bi donc daaka tur boobu fu la fu la dunga la la kunda la gaa unka la jaawaringa la maanaam la du ñëw ne lii mooy daaka waaw donc bés ñun ñu ngi commencé suñu ziar en 87 première édition 87 87 ba 2004 chaque année dañu def ziara ça ah. fait la 38e édition ñu ngi waajal suñu 39e édition mais nguur mosul ñaan nañu defar li CRD. Mhm. nañu defar li CLD. même en 2018 on a tué un un pèlerin qui venait au mhm. dañ ko rey dañ ko fetel les douanes les douanes à l'aéroport ko fetel il venait au Daga euh, à de Madina gis nga xam nga loolu ay injustice la. Mhm. parce que même si c'est des Bissau Guinée. mais quand même euh, taalibe sa mbokk la rek. Madina Baye bu kii gamu bu amee ñaata ñoo jógee Nigéria. wala Ghana wala feneen ak feneen xam nga c'est tous des parce que être un condisciple c'est c'est très sacré yow boo gisee sa condisciple ngay bëgg ci moom da nga koy kontaan parce que sa xam nga Macky ñoo na ci nguur gi ñu delluwaat ci opposition ma dina gunaas dem Pastef 2024 Pastef ñëwaat ci nguur même pas 100 jours ñu naan ñoo ñu c'est parce que c'est ñun ñoo fal waa Pastef. Euh, non ah, dañu fàttali ñun ñoo fal Abdoulaye Wade ñun ñoo fal Macky Sall léegi ana différence bi bi bi Macky ñàkkee nguur gi. Mhm. ngay wax. Ah, la njëkk nguur gi. waaw maanaam ñun ñoo fa indi Pastef. yéen ñii comme ni ñu indi woon PDS avant 2000. d' accord comme ni ñu indiwee APR avant 2012 kon Macky bi mu faloo dafa dem ànd ak waa Medina Gounass. Hmm. ñoom la faale ñoom lay dem ci seen i xew ak seen i yëf. comme Abdoulaye Wade bu mu faloo daa dem ci Medina Gounass di ànd ak ñoom. di leen defal ne di leen defal CRD yéen ñi leen. mu bàyyi ñu ndax nee nga ànd ak opposition. duñu ànd ak opposition rek d'accord en 2012 c'était kon yéen a indi Pastef foofu ni ngeen indee woon PDS. ak APR ci boppam Macky Sall. ok ok Macky ñu ngi yokk en 2012 laa jël élection yi ay mbokkam lañu ils sont non majoritaires là-bas. en 2012 Macky avait perdu les élections à à Médina parce que euh, ses parents n'avaient pas voté pour lui. Hmm. Ah, après lañu après ko voté en 2022 en qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mhm. le 17 juin bii passé. waay a deux situations la première situation cette situation là dafa waroon am en 2023 suñu ziar nee naa ñun suñu ziar 48 heures xam nga Dakar 10 jours la. ñun suñuy ziara 48 heures la jeudi vendredi lañ koy def. Mm. au mois de février de chaque année. ok dañuy choisir un jeudi et un vendredi. Mm-hmm. ko fekk Madina Gounass. ok toujours ziara day fekk mu ngi voyager mu ngi dakaar wala mu ngi ci yeneen dëkk yi comme ay ñoom Gabon wala feneen. ba ziara 2023 parce que Thierno Amadou 2022 la gaañu léegi ñoom xam nañ seen provocation yëpp Thierno Amadou da ko doon déjoué du tooñ du fayantu. Mm-hmm. mu déjoué. moom sax Sëriñ Tuubaa mos na ko wax ci micro nee na léegi du tooñaat Thierno Ahmadou. ndax à chaque fois moom bu tooñee Thierno Ahmadou day profité à chaque fois que Thierno Tidiane fait de la provocation Thierno Ahmadou fait de la profitation nee na moom du ko tooñati léegi. c'est-à-dire ci c'est-à-dire seen rise yëpp marché wul. parce que Thierno était un homme de paix un homme très calme ku munoon dental la bu la nee noppi leen noppi leen bu la nee taxawal mu mu fetal la da ngay taxaw mu fetal léegi ba deux mille kii comme deux mille vingt trois cant jaan jour ziara jour ziara. Mhm. mu ne day ñëw ma Madina Gunaas léegi nag bu ñëwee du jaar feneen bu dul suñu woon boobu la même ruelle mm, foofu la jaar amoon la 17 juin waaw te on avait tout on avait fait toutes nos pour la ziara mardi la ñu ñëw ba Tamba nekk Tamba mardi mu naan jeudi lay ñëw à 15h te il sait que jeudi a midi. ci la seen ziara di tàmbali ci la pèlerin commencé di dugg léegi bu ñuy dugg ay dañuy def ay lignes parce que oto yi. y' avait y' avait plus de cent cinq cent véhicules qui ñu jógandoo en même temps parce que dañu ñëw ba Madina Touare juste à l'entrée de Madina à quelques vingt kilomètres de Madina ñu def fa pause heure midi juste la ñu di dugg léegi moom mu jël quinze heures naan day dugg dugg jaar fan ñun fu ñu def suñu installation. suñu xanaa amul <laughs> ak a bëri ay yoon c'est la ruelle de la provocation les tous les instants qui Madina ci ruelle boobu la xew parce que ruelle boobu la suñu njëkk nekk. parce que lu leen metti mooy suñu communauté suñu existence. suñu kilifa ak suñu mosquée. le fait que daal ngeen résister. le fait que la ñu exister ñoom continuer di exister. ñoom dañu bëggul ñu exister en fait la question de Madina c' est pas une question ethniciste. d' accord c' est pas une question religieuse c' est une question d' existence. Madina Gounass ne veut pas que Madina Houda existe que Madina existe déjà ñiy def ko 38 ziara kay nga loolu ñooñu tamit existe nañu nga xam ne toute la sous-région vient à la ziara ba diaspora. conflit na. mais comme ni ma la waxee pouvoir de décision de lobbying ak leneen leneen moom tamit il a résisté il s'est il, il s'est désisté. parce que au départ mos na woo Thierno Amadou ci palais gisante ak ñoom Thierno Amadou mun na Thierno Amadou wax ma loo bëgg ma defal la ko Thierno mu ko man ñaar laa bëgg nga reconnaître sama ziyaara officiellement. mooy daakar bi. non non ziyaara. Ah, ñu ziyaara Madina Houda bi d'accord ah Thierno Amadou Baldé la Thierno Amadou bi ko woon Macky. non non Abdoulaye Wade gi daan mu ne nga reconnaître ko tamit samay taalibe. ñu ngi ñu ngi dëkk cité Madina Gounass kii commune Madina Gounass mhm. nangu nañ ko waaye seen adresse nga tuddee ko Madina Huda xam nga si carte d'identité da ngay fu da ngay gis commune ak adresse adresse quartier la ñu nekk adresse bi nga tuddee ko Madina Gounass nga reconnaître ñu boo ñu defalee loolu rek amul lu ñu la amul lu ñu lu si yow moom mm. la war a nangu c'était en 2004 en 2006 xamuñu leexoo war dina pas insister génn ci loolu parce que à l'époque Macky Sall moo nekkoon ministre de l'intérieur taalibe wala doom ci cantu jàng parce que loolu la wax. d'accord moo tax affaire bi projet bi demul fenn. gars yi da ngeen jot ne Macky Sall moo leen xañ loolu. non non nguur gi la wax du Macky Sall ah, était que Macky était au courant de la situation. wàllu culte c'est le ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur. oui pour xamal ne Macky jamais étranger auprès de le savait parce que ministre de l'intérieur il sait boo amee entretien boobu ak diggante Thierno ak Abdoulaye normalement qui doit être saisi en premier le ministre de l'intérieur parce que loolu rôle ministre de l'intérieur non du culte bi mais adresse carte d'identité la woon kese suñu carte d'identité defar ñu Madina Fouda suñu suñu adresse cité Madina Madina Gounass waaye adresse Madina Fouda kon d'accord da ngeen jox ne ñële ñoo defaat ay ça c'est certain ok que nee naa leen seen problème c'est problème existant Madina Gounass Madina Fouda warul exister suñu communauté waruñu am jiit waruñu am imam ñu am jàkk mais en deux mille vingt la ñu sànc suñu minaret léegi suñu minaret daa dem ba raw ñoom seen réew parce que ñoom seen minare quarante cinq mètres la. ñun ñu defar minaret bu am soixante douze mètres loolu métti leen lool moo tax depuis deux mille vingt trois ñu ngi jéem a lijjanti ay provocation moo tax ma ne la événement bu naroon am. bu amoon bu am kii le 17 juin ni 2023 mhm. ñu am mooy jour bi Cheikh Tidiane fii lay jaar par force gendarme yi ne ko Thierno mënoo fi jaar Thierno Tidiane mu ne fii laay jaar dëkk bi sama dëkk la sama papa moo ko sant fii laay jaar léegi sanda les gendarmes étaient jaarul foofu parce que Madina booy dugg y a deux y a la rue principal kii soo de Madina mu dem côté Linguère côté Guinée y a la rue là la rue là c'est une route lañ ko drone mais boo daa dem ba si kër Thierno Tidiane elle est plus directe elle est plus courte elle est plus grande mais nee du fi jaar ñu ngi lay def. def le grand tour ba bu defee nii nag ñun suñu njëkk mu ngi ni ci angle bi. non ci digg bi avant angle bi entre les angles. moom mu ci angle bi y a un angle ici moo tax cette ruelle là c'est la ruelle de de la provocation à chaque fois. situation bu am fii lay nee naa sont distantes de moins de 200 mètres. Uh-huh. c'est côte à côte. bu ñu waxee seen seen micro ñoom ñun on l'entend ici. ku si gën di te ñoom lépp lu ñuy wax ci micro lañ koy wax lu bari il ne se cache pas c'est-à-dire Madina Gounass s'impose et Madina Xuda warul exister moo tax nee naa mosuñu wax Thierno Thierno Thierno Amadou Thierno Amadou Amsa lañ ko woowee ba léegi son enfant son nom d'enfance lañ ko woowee ba léegi waaw léegi en 2023 comme loolu fomb na mu metti ko loolu la loolu la defaat ni fii en 2024 hmm. c'était cette provocation là parce que ils veulent deux choses que Madi qu'on raye Madina Houda de la cité de la carte de Madina Gounass ñu génnee leen parce que Abdou Diouf mos na wax mos na proposer loolu Thierno mun ne mu ne Thierno waaw Thierno Ahmad suñu Thierno. mu ne comme le problème de Madina là est parce que daf ko nekkoon laaj yow Thierno dis-moi réellement quel est le quel est le problème à Madina Gounass mu ne ko y a pas de problème à Madina Gounass on est au 31 juin il est 0 heure et juin dit que le premier janvier n'arrivera pas loolu la ñuy wax 31 juin 31 décembre moo jot 0 heure jot na te nee na 30 premier du ñëw. est-ce que yaa may comprendre loolu Thierno wax na Abdou Diouf de son époque Thierno après Abdou Diouf proposé mu ne ko léegi woon ma ci Sénégal foo mënti foo bëgg ma santal foofu dëkk yow ak say say say taalib Thierno mu ne la man fii laa judd samay maam fii ñu samay maam ñoo sant fii duma fi gën man ñaari dëkk laa mu ñu dëkk si àdduna madinatul munawara bu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala madinatul huda bi mënuma dem fenn mais le problème nga xam ne si un problème existentiel. 31 décembre moo jot war a jàll naan premier janvier du ñëw. Père Moussa Seydou moo nekkoon 31 décembre Thierno Amar mooy premier janvier. ok léegi c'est ça le problème existence. Mmh. d'accord waaw. léegi Pastef. Mhm. naka la fa duggee ak tey nan la situation bi demee parce que gis nañ président Diomaye dem na Dakar Medina Gounass. président président da président Diomaye mu demee Dakar une semaine avant muy ñëw. cinq jours avant en fait le dimanche xam nga vendredi la fa dem dimanche la Mary Teuw Niane le directeur de cabinet du président woo Thierno Mouniru téléphone mu ne ko président nee na vendredi dina ñëw ma Madina Gounass Dakar mm. waaye dina jaar ci yoon nuyu si la c' est pas un problème politique c' un président moo jëriñ ñëpp Thierno na ne d' accord Thierno woo wax ko taalibe yi ñu waajal lépp parce que c' la première fois mm. président di ñëw di bugg a ñëw Dakar naan day jaar ci Thierno. Macky Sall ans yu nekk ci nguur yëpp chaque année dañu dem Dakar mais mosu fa jaar. pourtant gis nga réel boobu. foofu lay jaar dem Dakar mooy yoon Dakar. mais hmm? mais da leen di romb d'accord léegi président Diomaye ne day jaar foofu par le biais de son dirkab Thierno Thierno Thierno prend acte. mu woo ñu wax wax ñu ko. Hmm. ñuy waajal venue di président parce que quand même c'est c'est c'est c'est un événement. Hmm. waaw président bu bu bu ñëw sa sa dëkk sa kër le vent le jeudi mooy juste la veille bi président war a ñëw Daaka. Mhm. le jeudi à vingt heures. Mhm. ñaan même rappel Thierno mu ne ko président nee na finalement du du du jaar si yow bëggul ñëw Madina fekk yow daa jaar daa nuyu si la dina jël dina dina jël journée spéciale ñëw seet si la ñëw ziyaare si la comme ni mu defee Touba comme ni mu defee Tivaouane ak feneen ak feneen Mary Teuw Niane mu ne Thierno nii la président wax comme Daaka la fas yéene ñëw. nañ ko ma nañ ko baal mu dem Daaka kese mu dellu après dina ñëwaat ñëw ziare Thierno Mouniru mm-hmm. Thierno Mouniru wax ko taalibe yi nangu mais entre temps qu'est-ce qui s'est passé pourquoi pourquoi pourquoi ce désistement ce désistement là de dernière minute on ne sait pas est-ce que c'est pas l'influence ou bien le lobbying habituel qui a qui a qui son de son parce que c'est pas la première fois président bëgg ñëw foofu. ñu mu reporté wala ministre bëgg ñëw foofu mu reporté pour te que même autorité. Mhm. bu ñëwee ba Madina Gounass bu gisante ak Thierno Tidiane. Mhm. du ñu nangu mu dem si Thierno Amar wala si Thierno Mounier même en deux mille dix neuf. Mhm. élection présidentielle campagne électorale Madické Niang a fait l'erreur de partir de Madina Gounass et de commencer de de de de de venir de partir chez Thierno Amadou en premier. bu fa demee suñu Thierno ñoom dañ ko bañ recevoir. déggoo loolu dañ ko bañ a recevoir ñu ne duñ ko recevoir ñoo Thierno mu ngi mu ngi dugg na xalwa vendredi la il est 11 dafa jaar ci yéen. ndax dafa reconnaître.